alamin Thierno nee na ñun ñëpp ñu bokk daal di wax baat bii di alhamdulilahi rabbil alamin jonde waane ni way riino e leydi ndi nee na jotaay bu mel ni gëjoon na ci réew mi sabu jara buye mo allah tabaraka wa taala jarani ko no aduna o ngir nattu bi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala nattu ci aduna bi o wi yettoo yoo xam la buur ca ngeen lu xaaral nee na sant ñaan na yàlla tabaraka wa taala yàlla dindil na ne ko na wéyal ci dindi boobu ba abadal abadi fekk du amati. wii surtout yow ci ñeneen ñettaal la cer neen bu doon wéyal sant yàlla. wii xaale ene sant wax yombul. bu la yàlla dimbalee ba di nga bëggoon wax nga waxee ko nga wax ko mu jaar yoon war nga delloo yàlla dugal ne alhamdulilahi rabbil alamin xaala insani wax dafa jafe kono noon allah walluma haa tiina ko kaalnaa ko ko ɗum ɓuri sanne ene waawi yàlla dimbali la ba nga saxal def li nga xam ne moom nga waxoon loolu it moo gën a jafe woni hadara o fof yiɗi no wadde oɗo ñalowma ena hadara mbiye boggol na def bisbi ɓe jetti e bandiraɓe ɓe ɓe kalani ɗum oɗo ñalowma ɓe ɗaadi yeɓiti mbokkoyi mi yeɓelnden bisbi alhamdulillahi rabbil alamin allah walli en ha ñalowmaji ɗi jettima eɗen mbaɗa ɗum fodde no mbiruɗen ni santi ñalla yallah tabanaka wa taala bàyyi nañu fi ba bis yi jot ñu ngi ko tàmbali di ko def ni ñu ko bëggee non ceerno wii en puɗɗorino golle ɗe bismillahi rrahmani rrahim en ñaagi allah tabaraka wa taala yo rokku en joofi o wi ko ɓeydade laɓɓinde tan dendagal ñalawmaji ɗi pop ɗi mbaɗa koɗe dow yemirore nena fekkina leeral rek leeralal ñëpp nena bis yëpp ci kaw ndigal lañ leen di defee e dow yemirore jinnaɓe men ceerno meɗen ceerno men ceerno mouhamadou bachir mountaqa daha mo cheikh alhaji oumar al fouti radiallahu taala anhu nena ci kaw ndigal suñu wayjur suñu sëriñ بأسيد محمد بن بشير ملتقى معها بمولانا شيخ الهادي قرى الفوتي رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين انا ودعنا كل نجار من لو انا نجار انا نفسي اكون من بيت وعي ووندي انا نجار وين فد يوم تلك وموندي انا نجار nee na alhamdulilahi rabbil alamin sant ñeen na yàlla la tàmbalee mille neuf cent daan nañ koon def ziar bi waaye la tàmbalee mille neuf cent quatre-vingt-treize bi nga xam ne ñëw nañ ci gox bii Cheikh Mouhamadou Bachir ñëw na ànd ak ñun nekk ak ñun fii waaye tamit mu gunge ñu wéttali loo xam ne dana nekk semaine nde wonno ko aadi yange kan ko ceerno inen faade hannde kala hitaande waɗaande o arat o renda e meeɗen nene ceerno alhamdoulillahi rabbil alamin neɗɗo koo xam ne dafay mottali kollere sammu kollere moo tax depuis boobu ba tey saa yu bis yi jotee dafay bàyyi léppam mu ñëw nekk ñun ànd ak ñun wi haa hannde kadi eɗen ɓaminiimo inchallahu taala ko elaa wol o woni nena ba tey alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy séntu moom Thierno mu ngi ci yoon bu soobee yàlla. ɓeeɗo ñaagi allah tabaraka wa taala yo allah addumo e dow jam o tawa en e dow jam nene ñu ngi ñaagi allah tabaraka wa taala yalla ko yalla ɓenditi jam mo daari ni seɓ yetti jam ene ne wii to allah yoo allah walan en tuum nee na yomb na ko yàlla boole defal. o rokka en hawrude ɗo kadi sahaamo wuuri o wadde heen kadi kitaale limtinɗe limtinɗe sabu batte alayhi nalatum sallllahu alayhi wa sallam yalla yit mo mayño fekke dewen mi ñaananmi ko mayño fekke yenen addu ɓeeri barke yenentiti sallllahu alayhi wa sallam o wi o saaha noon toujours yon ci enen mbaawi juulde nene léegi def tine su jotna mun nañu julde o wi so tawi en juuli ha en kelditi on saha pandone nene fu ñu julde en ba noppi jamono jooju nag ñëpp ñu bokk xaalali o wi ak muuda noon ko jadde tan en o xaali nene taalibe li ko war digënte ak siriñëm mooy nangu ak te ɗo ko woni ɗo ko fof alhamdulillahi rabbil alamina ko artuɓɓe ceerno mouhamadoul bachir moutaka ala hamo chehlaji ko radiallahu taala anu ceerno nena fii yifineki neuf taani ɓe leɗeti ceerno mouhamadoul bachir moutaka ala hamo chehlaji wuro fuuteyi o wii sabu ko woni ɗo ko fof ene yiɗi cheikh alhaaj de oumar al fouti radiallahu taala anu ceerno nena kam mbohlol moƴƴi fineki ñëpp alhamdulillahi rabbil alamina no sopp molana cheikh alhaaj oumar al fouti yureyi owi cheikh alhakim alfouti radiallahu taala anhu o jogii ko allah fedide nena mawlana cheikh alhaji umar alfouti radiallahu taala anhu ñaari taaliɓe am almuuɗo mo rokki wir e almuuɗo mo duwani ha woni hunde nena taaliɓe bi nga xam ne dala jox tariqa bi ak taaliɓe bi nga xam ne dala ñaanal ba nga doon dara o wii ko ɗum tan woni ɗo e leydi ndi nena loolu rek moo fi nekk ci réew mi ومين الصحالي فمك علي ايوا رانت تدان اتتدان رانت كوكوتاي نانا بو خليفه ميري نك لي موي دول موي لمو فك لو في فك دا موي ليكو مام مولانا الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه باي تي اي لخو وي جون اي باي وهي الحمد لله رب العالمين كلا جبت شيخ أمام kala jaɓɗo cheikhu oumar jaɓani cheikhu oumar aɗa foti jaɓande jaɓɗo ceerno bachir jaɓanama o wi kadi yettode woodani allah alhamdulillahi rabbil alamin yimɓe ɓe ne jaɓemo ene jaɓanimo ceerno nene kebbo ko hande nangugo cheikhu oumar nangol ko adi ay mayam warɓe muna nangu ceerno ahmadoul bachir nangol ko yiɗ adi ay mayam nene na santiñalna yallah tabaraka wa taala ñifimeki ñëpp nangu o wii ko ɗum allah rokkimo yimɓe ɓe fof ene jiɗi mum nene lolna ko yalla may ñit ñëpp bëgg nañ ko enen ne komo ñaagi allah yo allah rokku en fandinde yidde nde mum ceerno muñaag allah tabaraka wa taala yalna yalla may